di wax ni lii nga xam ne moom la def Sénégal gépp rafetlu ko mënuñu woon a def leneen dul ñëw sant ko kon nag déplacement bi déplacement cant la rek ñëw sant sëñ Muntaxa ci turu sénégalais yëpp mais jaar ko ci coalition citoyenne le peuple ndaxte ku ne xam na li xew fan yii ci réew mi réew mi yëngu mu am coow loo xam ni dañ ko fee yëkkati te ñëpp xamoon li ko lal ba tax sénégalais yëpp def yenn say ba mu jur li mu jur waaye sëñ Muntaxa sunu sang bu tedd bi def ci lim ci def ba lépp li nga xam moom la ci Sénégalais yi doon tiit amu ci finalement naam am na ay bakkan yu ci rot mu ñaan ñëpp ñu dal teg lépp ci suuf moom ci mbaaxug yàlla moom bi mu ñaanee loolu Sénégal yëpp nangul ko ko mais surtout ñun ñi nga xam ne ñun ñoo doon organiser li nga xam si moom moo doon résistance bi. loolu nag bi mu ñu ko ñaanee yónnee ñu sëñ Bass Proxaan ca Ndakaaru ak délégation bu mag. mu ni sëñ Mountakha nee na ngeen teg lépp ci suuf te ngeen wax ko lan mooy seen euh, mébét yi ngeen am ci lii ngeen doon waaj a def te génnul rek ñu bëgg dëkk bi ñu teg ko ci yoon jaay doole bi dakk lii nga xam ni moom lañ fi jéem a def di tuumaal ay nit ay ay mbir yoo xam ne faagaagal leen ak éliminer leen moo ko taxoon a jóg ñu fexe ba loolu lépp ñu teg ko ci suuf ñu teg ko ci loxo mais ñu ñaan mu ñaan ñu ñu nangul ko ko ci nangu bu sell wan ko ne sëñ bi yaay sunu kilifa. te yow yaay sëñ Touba lépp loo ñaan ci réew mi ñëpp la ko ñëpp la koy nangul leneen nag mooy ñi nga xam ne ñoo fa desoon ca kaso ñu mën cee lim Clédor seen mii taxaw ak Assane Diouf donc moom ñu tegoon ko ci loxo ki nga xam moom la ñu yónnee woon muy sëñ Bass Proxaan ne ko bëgg nañ ñu génn ci wax dëgg yàlla nu mu gën a gaawee ci nin ko nin ko nin ko nin ko nin ko sàkkoo woon mu defal ñu loolu ñoom it ñu daal di koy fekk ci li mu wax ne kon nañ nañ nañ wut jàmm ñu bàyyi ñëpp ñi nga xam ñoom lañ jàppoon ci mbir mi loolu kon nag ñun mun ñu woon def lenn lu dul comme ñoom ñaar ñoo mu jëggéen ci kaso bi Assane Diouf ak euh, Clédor Sène ñu ak Guy Marius Sagna ñu ànd nag ñëw fii au nom la coalition citoyenne le peuple pour sargal si sëñ Mountakha ñëpp tiitoon nañ réew mi basculé ci violence ndaxte li xewoon ci ñetti fan rek lu mat fukki bakkan ak ñett rot ci loolu tiitaloon na Sénégal gépp ba kenn xamantul woon lan mooy saafara si waaye saafara si nag mooy bi sëñ mu Muntaxa àddoo ni na ñëpp dal ñu jébbal ko lépp mu wis ci ndox mu sedd. Mbas Poroxaan parce que gannaaw bañ ko defee ndaw mëtale na ndawam euh, doxal na ni mu war a doxalee ba mu jur résultat yi parce que moom moo doon waxtaan ak yéen moom moo doon négocier moom moo doon wut solution saafara ba jàmm ak dal dellu si ci Sénégal ci sëriñu euh, euh, ci ndigalu. muy Tawfekh kenn xamul fu yem